nuyoo fii ci kër sëriñ Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal su ngeen gisee jataay bi ak xarkanam yi ngeen gis da ngeen xam ne ndigal li daa jóge ci Serigne Sidi Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Ahad moo ñëwati ngir fàttaliku gi ñuy fàttaliku ak ñaanal Cheikh Abdoul Ahad ñaar fukki fan ñett ci weeru sawaal eh, jub si na jege si na eh, saa su jubee nag commission culturelle bi nga xam ne sëriñ bi moo ko tànn ci ndigalam ci jiital Cheikh Abdoul Ahad Jaxate ak euh, bokk yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir commission bi di ay woroomi xam-xam ak ay jàngalekat ak gëstukat ngir sëriñ bi daf ñoo sant ci ne Cheikh Abdoul Ahad géej la kon saa bisam jubee jamono laaj na ñuy càmbar ay aw doxiinam ak i jikkoom ak jëf yu rafet yi nga xam ne daana ko def ngir ndaw ñi man ciy jariñu loolu nag mooy tax ñuy tànn kilifa yi nga xam ne dund nañu ak moom te man ñu cee indil jàngatal ñu yu bëri ci ak dundam ak ay jikko ak ay yuñ mën a royee ci moom yoo xam ne ndaw yi danañ ci jariñ kon teew na fi commission culturelle bi sëñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar sëñ Abdoul Ahad Maam Asta Cheikh Abdoul Ahad Ka sëriñ Abdoul Ahad Bousso mu sëñ Abdoul Moutalib ñu fekk fi tamit sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Oumy mii ñu nekk këram xam naa moom la ñuy teg nuyoo bi ci loxoom moom mu jàllale ko su ko defee sëriñ bi Eh, ni ma ko waxee léegi ñëw nañ fi ci ndugalul sëriñ bi sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad ngir taatan ci yow ay kàddu yoo xam ne da ñu ko mën a baaxee ci Cheikh Abdoul Ahad ci digganteem ak Cheikh Amadou faadal ak sa diggante ak moom ak yi nga xam ne dund nga ko ci ay mbir yu am njariñ yoo xam ne jamono laaj na ñu fàttaliku ko te dund ko bokk na ci li tax ñu ñëw fii ci kër Serigne Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal ngir jamono na ak Cheikh Abdoul Ahad waaye nag dund ak moom ginnaaw Cheikh Abdoul Fadel mu nekk ci biir Cheikh Abdoul Ahad jëflante ak moom sëriñ biir jëflante ak moom mu dund lu bari loo xam ne jànge na ko ci moom loolu nag kon jaadu na euh, lu mel noonu ñu balluloo ko ci moom ngir askan wi man cee jariñu kon sëriñ bi dañ lay jox kàddu gi bismillahi rahmaani rahim euh, alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa tey sant Serigne Touba tey nuru Serigne Mountakha mi nga xam ne moo toog jataayub Cheikhul ak mboolem fu Serigne Touba def dara rek tey nuyu sunu kilifa yi nga xam ne ñoo yor sunu baatu kër muy Cheikh Mamadou Bachir ak Serigne Abdou Fatah mi yor kaddu gi mu tegal ñu ci loxob Serigne Abo mi sunu Serigne waaw Serigne Ahad li nga wax déggees na ko mënees na koo xamit nag waaye da nga ne damaa ñëw kër sëriñ Cheikh mi waaye da nga ñëw naa kër Serigne Abdou laxat fii moo moo ñu ko jox bam koy joxee nag dafa woo sëñ Mewndu woo Jib Ndiaye ne leen damaa bëgg ngeen dem ca hôpital ba la feete penku. doon tooloon tooli soxna soxna Awa Bousso ya nit boo nekkee moom te bëggoo mu jëppi la lu ne dañ cey ne te moom moom may de muy suñu fallu te lañ ma nettali ñoom bàyyeewuma dara waaye man du ma ko bàyyee dara loolu la waxoon daal ne su ngeen demee na ngeen jël njabootug suñu fallu gi boole leen dennale leen bu ngeen noppee nangi teg waa kër sëñ affaire ñang yi bu ngeen noppee teg ci waa kër sëñ affaire bu yi mooy fii nu dëkke kon fii bu ne kër sëriñ si yoo xam da ngay wax kër sëñ Abdoul Ahad man nag 68 la fi sëñ bi jógee 69 laa ñëw Touba Belel waaye ku ko miin da nga gore da bëgg sëriñ bi danga nga doon ab taalibe loolu moom lu ma xam ci moom la la ca des nag lu ngeen ma ca laaj tama xam ko danaa ko wax waaye ku bëgg lu baax la te as gor la ab jullit la am na ci loo xam ne nag. kenn mënu ko yëg sëñ Tuubaa doo ko jaarale ci moom moom ñële moom ay mag lañu waaye moom nag fi mu toll ku fa toll li nga yor nga nanga koo bokk ak ñi nga bokkal da cee bëriwut yokk na nag wàññiwut moom Cheikh Lahad ko ko xamoon ca Touba bu xëyee toog ci penti bi ànd ak sa sa sañ am satu sëñ Abdou Lakaram ak sëñ sa sëñ sëñ sëñ Mourou Mamoun Abdou Karam day xëy si bàcc gee koy jëli ñu ne fa 68 69 70 la ñëpp ñibbi si bàyyi faale ñoo di defar kër ga fa la ma fekk mu ne Cheikh Jaxate kay dëkk indi sëñ meew du jox ko mu sëcc ci Cheikh Jaxate am mbedd dox seen diggante mu ne sëñ Moussa Alima ñëwal di dëkk Carna Fall ñëwal dëkk sëñ Fallou Ndiaye xebar ñëwal dëkk Daare Joo Njóobeen yi ñëw dëkk ak ñoom kër Mor Niass ba ci wàcc yéen yu ndaw ñooñee mu des fa ab diggante boo xam ne kër Cheikh Assa Dogo moo ci sos nag ñu ne fa ak moom waaye ku gore la ku bëgg lu baax la nii gone yi mel il mu ñu mel ni waaye nag kenn mënu ko dab sëñ Fallou nag amut sago ci moom sëñ bi tamit amut sago ci moom man lu ñuy defal nit moom a ko defal moom ndax ba may fay ñëw booba. xale laa jóge ci xalifa ak sëñ Fallu ñu ci xalifa ak sëñ Blaat ak ñam toll xalifa gi yombut de xalifa piir noonu lay mel ndax ñëpp ca bokkoon. xanaa xamoo ne bi muy nekkee Touba Belel di sancal nit ñi dafa toog ba mu yàgg mu woo suñu meew dina ko damaa bëgg nga yoral ma dëkk bi boobu ma ngi koy jàngal muy Touba mu yor ko ba yàgg mu boole ci coopérative ba ba yàgg mu ne ko damaa bëgg nga ñëw dem Touba. ba mu ko joxee dëkk bi tam bàyyiwu koon moom dong dane ko dama bëgg nga dem ci doomi Sëriñ Tuubaa kenn ku ne nga nag ma fa tànnal ñaar wax ko ña nga xam ne ñooy doomi Sëriñ Tuubaa kenn ku ne tànnal ko ñaar indi ko mu boole ne sëñ Moodu ne leen dee leen déglu lu ñu la wax na nga di ko wax ma musta beru de musta bëgg yëfi boppam waaye boole woon na ci ñëpp laa wax seere ko nag day jafe ci man waaye sama xarita ñoom sëñ Laat la cay dolli ko nag mooy lii nag mu bokk ak ñu nit ñi ak bokk ak ñu njabootu sëñ Tuubaa gi kenn ku ne jox na la la moom la ca des nag mooy nu tàbbi ci biir bis bi te defal ko lam nu doon defal rek lam ma sa wax ne sant ku ma deful dara xarab ko la loolu mooy dëgg ku ko ku mu defalul dara amul ndax bare na ci ñun ñii génération bii toll am na noonu jàppee sëñ Tuubaa bu toon moom dañ koo jàppee wax baaxu jàmbur nag ci waxu baaxu kenn dara danoo bokk luñ bokk sëñ bi boole ci boppam waaye du tee nag moom jëf na fi loo xam ne bari na tukki kenn ko fàtte moom rawatina xool dari bi rek sëñ bi xoolal yokk bi jumaa ji leneen loo fi gis lu ne mag ñee ko defoon la yokk moom moo ko fi njëkk a tàmbali moom te nag yokkut dong nag yemi ci jumaa ji dong ci nit ñi la njëkk a yokkee daanaa dégg nag ca mag ñi ñuy wax ne fii sëñ bi bi mu leen wooyee neen dama bëggoon ngeen dikki ne kapp seen kii de la dal kële laay bañ mu dal kii de moom sëñ Fallu la ko wax ndax moom kenn waru ko ci mbokk man dama bëgg ñu ne ko kapp rek kuy kuy génn yam ci ñun kuy dukk yem ci ñun daal di ñëw ne leen da ngeen di ñëw nag mu boole koog sëñ Saliou fi ñu dëkk boole koog sëñ sëñ sëñ Mourtala Nefe sëñ Abdou Khadir fii am na ku ko moomoon ci ñoom ñaar ñu ñu waaye dañuy nattable comme doon laa xamul ndax fekke wu ma ko mu doog a jox sëñ Baara jox sëñ Tolofat Dia jox sëñ Abdou Borom dër bi doog a dëkk fii sëñ Blahat taxaw ak yafa daa xew waaye ku moom dara boo koy jël kenn mënut a tee ba doo ko jël moom nag bi mu dëkkee fii mu dëkk moog sëñ Saliou musta lekk bàyyi sëñ Fallu bu ma see togg añ dana tibb yóbbu bu ma see togg reer dana tibb ndax nee na ko kuy kuy dund ci yëfi jaamur loo am da koy bokk moom. toppee moom xam nga cër la ci nit du jàng ne pour comme ku jóg rek man ko ñoom nag xam nga sëñ Tuubaa dafa def ci loolu ñu nekkul ci nit ñi moo tax ñu man lañ man waaye nag du tee ku bëgg dara il faut nga wut kilifa. moom nag mat na sunu kilifa ndax dëkk bii nu ne de lu sëñ tubaa am yu am baat dugal na ca baatam te xam nañ ni dugal na ca baatam muy dëkk bii ak njaboot gii ak dong yii ak ak ak ak yoon yi ak mbedd yeeg dëkk bi rawatina mar Sokaas bi ba ko fi tojee loolu dégg na ko waaye tey loo ci dégg lam ca doon wut am na ca lu ko kawe njortam waaye fi ne nii yokkuwaat na leneen dikkat na lu kenn xamul lu mu waaye du tee nag ñu ne ko allo eh, jaajëf rek sëñ Abdou Lahad daal moom ku ne amel na ko njukkal yéen nag tuddee rek lañ leen ko def waaye lim defal ñiñ tudd ñiñ ko tuddee wut benn ci man mii yéen defalu leen ko moom yàlla na ko yàlla fay te njabootam gi mu fi bàyyi tam yàlla na leen yàlla suturaal te boole leen ndax nit it nag boo sañoon boo ko bëggee ci sa biiru xol doo dégg kenn ku ne jam ci moom dara kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax li ma xam ci moom nag bari na ci loo ne du ma ko mën a wax waaye ku baax la de ci ñëpp laxat kenn ku ne la nga moom dala ko jox te yéene la ko nag rawatina na ndaw yii jëflante wut ci nam toll ndax bu ko bu ko bu ci jëflante woon dana metti waaye dafa jëflante ci xel nag ci ñëpp laxat ku amoon xel la ku amoon fulla la ku amoon fayda la ku amuk dog la woon dëkk bii moom ni mu ko defaree ginnaaw suñu fallu keneen ku dikk rek da ngay toppaat ci loola rek ñee nag ay mag lañu moom Cheikh Mouhamed Moussa ak sëñ Fallu moom doonuñu ay gone waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo tolloo ñoom li ci seen laat def nit du ko ci defaat moom waaye nag njab suñ ñun ñii nga xam ne mooy génération bi toll nit mel ci Serigne Touba ak yéen ñi nga xam ne yéen yéen Muxaddamatul Xidma nii ngeen tënkoo ci Serigne bi moom rek lañ koy reyee sëñ bi laat da ngay xool mu daan def sëñ bi doon sëñ Touba ak fi mu xëy toog ci suuf ba jant bi so te ci Touba bi la ci digg penc bi ci neexmaa bi nit ñi dikk ka dem ak dikk mu toog fi toog sóonu ci suuf. te mooy sëñ Tuubaa kooka kooka yëgali na lim yor lu mu doon waaye kam yore xam nag mooy kan moo tax li mat a def daal mooy roy leen jéem ko kenn du ko man waaye fulla mooy jaay jaxaar jom mooy fexe fexe ba wutal la lu baax fexe ba tamit nag ba jikko ju baax nga am ko moom ku ko miin da ko roy ci moom nit ku baax la la cay dolli ko nag mooy dëkk bii moom am na boroom te lam ca waxoon nag jërul xeex jërul xuloo ka la mata ka mata defar la war a defar moom dana ko defar. dafa am ku ñëwoon sëñ Fallu nag ne ko si nga war sa xarit mu ne ko yaa may tooñ boo ne ko sama xarit nga yaa ngi may tooñ looloo dal si la laxat àndut ak kenn ku li nga li nga àndeeg moom rek la àndeeg yow ñooñu itam la àndoon ak ñoom rek danga ma daa dégg bu daa wax ba noppi day jékki ci yéen da ngeen ma jégal kët ma wax sama mbokk tali bi loola ngeen daa dégg loolee nag la ko waral mooy day wane ne fi mu ne du fa jóg léeg ku dikk nag loo ànd ak na ko ànd ak yow waaye la woon waaw doon wax ci ko wax ci suuf rek lu may wax mën na ko wax adduna bépp dégg ko moo taxoon ñëpp wóolu ko mu wóolu leen rek waaye nag musta wax it nit ci biirum néeg lu mu du ci penc ma sëñ laxat lu muy wax ca kaw la koy wax ñoom itam nag fañ ko tegoon da leen musta wax lu lu lu nekkut ci moom nit ki waxtu boo ko dee wax lu nekkut ci yow rek mën na laa yab waaye boo ko dee wax li ne ci yow du la yab mukk loolu moo taxoon kenn yëbu ko la nam daa ànde nag ñuy bokk di def lépp da ci laa jël engagement am responsabilité loolu nag dafa jeex ci àdduna moom jël ko ni mu ko ne kenn du ko def ci àdduna moom dafa am ku dikk ni ko man de daa am lu ñu woon mu ne ko kañ la woon mu ne ko bis sànga mu ne ko wax nga dëgg de mu ne ko dang ne ma woon bu sa bët xonqee naa ñëw ci yow mu ne ko ah mu ne ko sama bët xonq la nangam dafa xew mu ne ko noo ko bëggee mu ne ko dama bëgg mu saafaraw mu ne ko léegi toog woo bàcc géey mu ne ko dama jël li ma diw wool diw ne na ànd ak diw ñëw fii bàcc géey dem ànd ak diw dikk mu ne ko kii lu mu def ñu ne nangam ak nangam la def mu jël téléphone am woo Abdou Abdou Diouf ne ko kooku foofu mu nekkoon maa fay ne tey mi ngi fii ci man responsabilité bi kenn jëlatu ko moom nag lim doon jël benn nit du ko jël ci àdduna benn nit du ko wax ci àdduna ndax dafa ñeme woon te lim nekkoon la sëñ Tuubaa waxoon ci moom ne am na ma ci moom yaakaar moo taxit loolee nag la nit ñi delloowaat ko ko ndax waxtu woo defee la sëñ Tuubaa loo mën mu defee lu la jom xam nga nit bu bu yeewoo lu mu aw yeew yeewatee ko ko may moom dafa teeloon a jàng sëñ Tuubaa topp mag ñi nangoo na lim yoroon li ñu yoroon lépp jox ko sëñ Tuubaa moom la ko waral mooy dafa xiir xanaa xam ne sëñ ku ko gën a xiir ci àdduna ma bu la dee jox da yaakaar ne yow dong la daa la war a jox ci àdduna moo tax jëflanteeg moom day jafe mag ñi nag dalee na xiiroon ci boppam ñoom itam ñu xiir ko seen bopp moo taxoon lu ñu am jox nañ ko ko te yàlla tax mag ñi nag kenn mosu ko ci jëppi moom ndax dafa la nangoon a am kilifa nangoon a toppe nangoon a jël yaakaaram teg ko fi mu ko wala teg ba tax na bi yëf yi egsee ci loxo mu man koo mu man koo téye ni mu ko téye woon daal dana jafe ci àdduna ku ko mën a téye ci moom wax dëgg nag du ko tibbali nañ ma jégal nag kenn ku ne la nga dund ak moom noonu nag ku mel ne man mënu koo fay ñun ñii fii nu dëkk daal moo nu ko jox du kër Sëñ Fallu njaboot gee fi ne nag waaye dafa jël bakkanam dana waxoon sëñ Maodo ne ko na ngeen fex ba gone bu kenn jaay na ngeen ci teg seeni bakkan jim jaay ma ko nettali kon tey su ngeen demee ba bis bi ñëw bis bi kenn moomu ko man nag la ma ko warlool ba ma sañ sampee kër ak léegi maa nga ca ajjuma jot dinaa togg añ yóbbu ko ci barabam bi xam nga mm, boo gisee ku mel ne Serigne Modou Mamoun Niang këram niñ ko miine miine wuñ ko suñuy kër mooy booba dajale téere xew nu ngoon yëpp fa la ñu ne bu ñu xëyee dem dajale ba ngoon jot yi sëñ laat moom si yi sëñ laat moom sëñ sooy bokk bind yii nangam yi nangam yi jóge nangam sëñ laat di mool ci biir kër gi loolee fa la ñu fekkoon te lenn loo xam ne ñun suñu kamil yëpp mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci bi te yooyee dong nag mooy yëfi moo yëfi murit loolee nag moo waral Sëñ Abdou Lahad moom mm, lim siq ak sëriñ bi bu ko ko sëriñ bi fayee léppam xolam dana sedd ndax lu mat a defal sëriñ bi rek defal na ko ci la man ak la manut ñun ñii fi mu ne lii tax ngeen xiir ñu comme yéen ñi ngeen doon ay di yori kuris ak nangam nangam ci Sëñ Abdou rek la ndax booba Tuubaa am na nu meloon waaye bi mu dikkee da ko defaraat boole ñu ci ñuy jàng ci jumaa ji wëlbatiku ne ci daari kamil di dajale ay téereeg lu ne lañ daa def te loolee sëñ bi laa tax ñu mën ko am na ci loo xam daal sëñ bi koy yëg waaye des ko mën a wax. man ne am naa benn bis boo xam ne nii fanweeri seet fekk na ko laat gay xar ñoom laat gay ngoox ñoom gone yooyu nekkoon ci daara ja fa la ma fekkoon noonu la daa def la cay dolli ko nag mooy. ñii nga xam ne ñoom la bokkal Sëñ Tuubaa da ci bari ñoo xam ne nii neexu noo waaye fexoon na bay jaxasoo ak ñoom ndax kenn ku ne doo la jàppee jikkoom dalay fekk fa nga ne mu ànd ak yow sa nga ne mu ànd yow ci sa jikko ba moom la ci sa jikko nag te doo sañ a demati fenn waaye ku xamoon ñi doon àndal ku xamoon ñi muy àndal xoolal bi daal ña fa dëkkoon rek da ngay tàmbalee ci Jaxate mbokkam def noonu rek am na ñu neexut jaxasool de waaye moom da lay fekk fa nga ne mu ànd ak yow ci sa jikko ba lim bëgg ci yow mu def ko ci sa jikko ba noppi nag te doo ko dootoo ko mën a baax ndax da koy miin bu boobaa ndax sa jikko loola fekk ànd caa yow day nit ku baax nit moom xanaa defar ci ngay wax waaye waaye boo xoolee ñim àndal ñëpp rek kenn ku ne am na lu mu def ci yow doo ko fàtte mu fullaam rek ak faydaam ndax nit koo xam ne nii boo dee xool ci àdduna ëppale woo ko ci nes nes yi yi mën a gis ba nga mën a tiitaru bu dee ci wàllu fulla tamit nag danga nga xam ne kii ëppoo ko fulla te ñemewoo koo jege te moo gën a neex na moo gën a lewet nag xarum yar ci ko ko miin waaye mënoo koo séen mu ko yàpp ko te bu dee xoy-xoy yi addu yi te moo la ko ëppale nag ñetti mbubu lay tegale fanweeri mètre takk weer yoo xam ne nii seex bi mënu ko am ak ab Lahad Doussami te bu fi jógee jëm Dakar ñeenti oto lay àndal dem Karim Karim Fall kenn mësu koo yab de waaye fulla la ànde woon ak nit ñi ak fayda ba kenn mënu ko yëpp waaye comme jaxasool da nga ko bëgg nag moom ndax xër na te man naa joxe te wax ci kaw wax ci suuf seen la daal loolu mooy mooy jikkoom joo xam ne bu ko ñëpp royoon lépp mën naa baax waaye jamono nag fii mu toll wax ci ko wax ci suuf a bari. ci seen jamono yooyu maanaam euh, ni mu xeertale woon ndaw ñi ci jàng xam nga fi mu nii dafa mel ne alxuraan gën naa fees ci ndaw ñi. ci yi jël ay ay ay ay ay di jël ay coupe fu nekk ba ci ba ci bitim réew euh, yow ci seen jamono Cheikh Abdoul Ahad ku mas a kaa kaamil yët ko nan la daa jëflante ak ak moom def lu man ak lu mënul rek man de ba ma ko ko joxee dane ma bi ma lay wax ngeen ànd dem Abdou Samad la ma booleel Mourtala ñu dem Bambuk mu ne damaa bëgg li fépp jaar ngeen jaar fa waaye nag bu ngeen ko defee lu ngeen bëgg dinaa ci de ma ne la ma waxoon def na ko lu mu am de moom defal na ma ci la man Ibra la ma daa booleel lu xew moo indi teraanga ji sama kër la ca des nag moom mooy jàngal moom jàngale jàngale moom kenn mënu ko cee fekk ak liggéey fanweeri jëwlin ci dongay laxasaay moom laa ko njëkk a gisee ci àdduna moom mu di leen liggéeyloo te lu mu ca jógee lu ne lu mu ca jëlee lu ne jox ko Sëñ Tuubaa njàng moom daal di kaamil yi kay li ko indi indi la lu ne amul kenn ku sant Mbàkke ko fi sëb kaamil nekkul këy kaamilu sët kaamilu doom bu fa nekkul amul te lépp ci loxoom nga koy teg te boo koy teg ci loxoom mu jox la teraanga joo xam ne bala nga faa jógee da nga toog weer wala ñaari weer loo xam ne doo doo bëgg dara loolee nag moo taxoon gone yi daa xaritoo ba ma ko lool xoraan bokkut ak jamono jii nag nga xam ne lii nag moom dafa xew dafa am lu ñu ubbi loo xam ne kenn xamul lu koy tëjagum. xam nga moom dafa tàmbalee ci bàqara ba naasi boobu Sëñ Tuubaa nag moroomam wala nga di ko jéem a roy ci lu ne ko yaay doomi Sëriñ Tuubaa waaye moom waxtaan nu wax naag noonu ku bëgg a dund ci àdduna te doo yàq dara walla nga nga wala nga wala nga nga nga wala wala wala la nga doon nga xam ko dangay ngay déglu ay waxtaanam man de man de la tàmbalee bam mu la mu njëkk a waxtaan ba li mujj a waxtaan am naa ko danaay toog nag di ci dugg di ko di ko déglu ngir bëgg xam kan sama bopp waaye xam naa ne taalibe bi Sëñ Tuubaa moom ku ko doon moom mat yor nga matériel moom doon taalibe bi Sëñ Tuubaa ku ko doon am nga matériel boo xam ne kenn du ko yàq te jàngal na na ko nag nit nag mënoo ne lam wax lépp nangam ak nangam la ndax fa may waxee doo ko fekkee la may wax tam dégg rek nga ca man la nga cee mën a xamit nga ko mën a xam nga mën a xam waaye moom musta wax lu doonut li sëriñ bi digle musta wax lu doonut li sëriñ bi sopp musta wax lu sëriñ bi di nga xam ne bu ñëwaatoon du soppi aw tooginam moom. am nag loo xam ne daanaka ginnaaw dongalaa ñu yilif ma du du ma sañ joxe ndigal di waaye nag man ñi ma tollool sama njaboot ñu góorgóor jaamu yàlla te liggéey rek buñ ko wut buñ ko am buñ ko defee jot doon ko am bay mën a dugg ci leneen te ku dugg ci leneen rek boo jaamoo yàlla na nga liggéey bëgg loo bëgg mën nga ko am loolu nag mooy li nga xam ne ci lañ war a tënku waaye nag digaluma ko kenn ndax suñu maa joxe baat waaye ñi nga xam ne ñoom. danañ may déglu buñ bu ma sañoon ñu jaamu Yàlla te liggéey daal rek buñ ko defee liñ bëgg lépp mën nañ ko am boo xam nga jikko dañ ne borom pax jikko si daal moom dana jafe roy ci dara waaye boo ko dee gis ak di ko dégg dana tax nga am jom te ko ko am rek leneen lu ñuy mën a lijjanti si jikko tam dañ ko mën a gis ndax jom jaay tax moom loolu fi ay moromam def na def na ko rek waaye li ma ci gën a marqué daal mooy yokku jumaa ji moom ndax sëriñ bi tamit nag mu tànk ginnaaw tànkal la am lañ wax waaw kon yokkal ku yokkul yaa waaye moom yokk na moom moom daal yàlla ko yàlla fay rek. ful la daal moom la doon la yore woon lépp nii mu demee daal demewu woon ba mu fi nekk kër sëriñ yi moom kër sëriñ Tuubaa lañu dongo yi dongo yi sëriñ Tuubaa lañu yëf yëf yi sëriñ Tuubaa lañu boo yoree batu sëriñ Tuubaa nag boo yoru sa yëf yi sëriñ waaye moom yoroon na ko moom li def nag mooy moom. li mu matoon def daal def na ko ci li ñu xam li ci des nag da ci am loo xam ne suñu yoon nekku ci te duñ ko sañ waaye moom daal jaajëf jaajëfati du moom daal li li tubaab di wax du tricher loolu mooy dëgg nag moom foo lu mat a def daal def na ko ci ñoom ndax moom amut suñ son bi la moom mooy mbokkam ak suñ Saliou mooy mbokkam déedéet moom suñ tubaab la jël xool si yëpp du xaajal lu ma soxla la an si yëpp du nag waaw te boobu mënoon na ne Saliou wala mu ne bu waaye loolu ndax da ko daal si sëñ Abdu te booba yéen ñi xam ngeen ne fekk ngeen noonee nag la mel dafa set wecc yàlla nu yàlla taas ci barkeem te yokku leeram man ne maa maa ngi koy ñaanal fu ma toll ndax moom laa ko moom laa ko mënal nag ndax ab taalibe laa sëñ Tuubaa la gëm te c'est euh, wax dëgg yàlla euh, ñoom boole nañ ma ci seen bopp waaye moom de ni may ñaanale Cheikh moom lu Fadal la koy ñaanale dama koy tudd de turam njabootam gi mu fi bàyyi tamit nag yàlla boole dama ak ñoom ma yàlla di ñaan daal seen barke ba yàlla na leen dal la cay dolli ko nag mooy nu ñu ma war a waxal rek nu góorgóorlu rek te xam ne li fi mat a def mag ñi def nañ ko ba noppi dara kenn mënu ko yàq xanaa kay nit koy yàqu rek yàqu waaye li fi ne kenn mënu ko yàq wax ji nag bari na lool waaye ku wax del wax loo xam tey wax looy def te wuti kilifa nag te toog te yem te noppi bu ñu ko defee lépp mën naa baax. sa sa digg ak sëñ Seydou tamit. Euh, gis nañ ci man mën nañ ci seer ndax gis nañ ne liggéey yi yi ñuy defal sëriñ bi euh, ci Daaru Salaam Bukki Barga xam ne fa lay liggéeyale sëriñ Touba saa su ñëwee da ngay fay dem yor sa dalu bopp loolu it xam naa ne am na lu ko waral. Ah, ah, yow nag xam nga sëñ Siidu nag du sama morom man am saay sama morom moom ma ko yëgal ginnaaw sëñ Siidu du sama morom ndax sama kilifa te man duma jaxasoo ak sama kilifa te xanaa xamoon ne sëñ bi koo jaxasool rek ci jamono ji ku sëñ tubaak ak doomam. man ngaa gis ci moom loo xebet man tax du ma jaxasoog sama kilifa waaye nag samay morom laa jaxasool am saa ma fa te damaa xamoon waajuram wu jigéen xamoon ko moom ci boppam boobu mi ngi kër Cheikh Jaxate jàng rakk Cheikh Jaxate ko ko jàngal boobu Abdoulaye mii di seen kilifa boobu maa nga fa di jàng man ne di jàng ne ñoom rek waaye sama xaritam moom ma fa yóbbu ak nag damaa defut lu gën loola liggéeyal sëriñ ma ci woo foo ma woo la fa waaye nag siitu du sama morom ma may jaxasoo moom am sa daal laa jaxasool di ñaan di ko ñaanal rek mu yàgg fi te wér te yàgg taxawee bis bi yéen it nag eh, nit ki moom wàcc nañu bu dee sëriñ Cerno bu dee sëriñ Mataar la ko war def na ko jur nañu leen fi ñu leen war a juree di gor ñoom jigéen ñi tam gor lañu yéen ngeen judd nag doon gor gore nag yéen a koy wutal seen bopp nii rek la jàpp leen te bu leen bàyyi noonu nag ak ñi ma ko sañ a waxal muy samay moroom kenn duñu topp ci sun ci sunuy benk ñenke da ngeen ñu jàpp ngir yàlla rek ndax noo ko bokk bu yàqoon mu yàqu bu baaxee bu baax rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Abdoul Fadal ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu yi njëriñ yi bëri na lool liñ ci mën a jëriñoo it bëri na lool jàpp naa ne bokk yi ñuy seetaan ak yi ñuy déglu Euh, danañ ci jariñu bu baax a baax kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax te di la ñaanal gudd fan ak wér di la sant it ci turu kilifa yi yi nga xam ne ñoo ñuy liggéeyloo di sant it bokk yi nga xam ne teewoon nañ fi léegi kon jotaay bi moom lañ amoon fii ci kër Serigne Cheikh Oumy Mbacké mu Cheikh Abdoul Fadal ngir waajtaayu ñaar fukki fan ak ñett ci magalu Cheikh Abdoul Ahad ci taxawaayu commission culturelle bi nga xam ne ñoom la Serigne Sidi dénk lu aju ci wàllu culture communication ci magalu Cheikh Abdoul ñu teewoon ci jotaay bi eh, di sëriñ Abdoul Ahad Ka mu sëriñ Modou Kabir Ka eh, sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Mokhtar Fati Kani sëriñ Abdoul Ahad maam Asta mu bàyyi sëriñ Boussofé mu sëriñ Mbacke Kani sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Abdoul Moutalib eh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Oumy moom it day dugg ci suñ biir ak sëriñ Takku Mbacke mu sëriñ Cheikh Oumy sëriñ Cheikh Gaawaan mu sëriñ Cheikh Oumy ak sëriñ Naasi Ndiaye. Maysa sëriñ Maysa Ndiaye ñoom ñëpp teew nañ fi doon jëmmal jotaay bi kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di leen dig daje ci beneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu